Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. te coalition coalition nga wax. Mm. ci parti sax fay am massacre ci coalition. Mm. coalition Benno Bokk yakar du bu mm. ndax ñun sax xana coordination communale nga xam mo moo ndaw dañuy am suñu problème suñu biir mais dinañ ko régler dinañ ko gérer loolu nekkul loo xamante ne kon war naa mën a am benn impact ci par rapport ak euh, li ngay wax ni ay candidat potentiel beeg yooyu noonu bennoo bu waree tas dafay tas ka war a falu dana falu mais comme ni ma la ko waxee woon rek ci njëlbeen nga mhm. ñun dañu askar woo xamante ne ñun dañoo am kilifa te danoo fonk suñu kilifa fu ñu suñu kilifa joxal joxoñ rek ñun fa la ñu jëm te instant bi ñu ngi ci procédure waa lu waay di yàkkamte te man sax dama yaakaar ne dafa am ñoo xamante ne ñoom waruñoo wax ci loolu ci walum ñun suñu potentiel candidat waruñu ci wax parce que yow bu féké comme par exemple Pastef ñom instant bi amuñu candidat à l'instant T leur candidat n'est pas éligible ba fi may waxee ak yow kon gumba amna leneen lu mu tal du tebi kambo ci li ma ma dellu siwaat ci benn point bu ndaw pour leeral ben affaire bi may wax affaire euh, français bi je fais pas je suis pas je suis pas spécialiste en lettres hein. je suis économiste de formation et statisticienne kon su wax loolu noonu du tiagam damay oten wala dama ko indexé directement monsieur Sakho je vous ai pas indexé parce que vous n'êtes pas la seule la seule personne à avoir parlé de de l'article 27 bëri na campagne ngeen ko waxee ngeen ko fu kon pourquoi nga koy jëm féetale sa bopp du pour yow dama wax pour le général parce que ñëpp ko yàgg wax loolu donc mo taxone may wax mais pour dellu soit un peu si li nga doon expliquer sànq mm-hmm. Euh, dëgg la ay divergence am na mais ñun gëm nañ ni njott nañ ni suñu kilifa bu ñu nee ñu lii la ñun ñëpp dinañ delloo si waat suñu xel. ndax li ñoo fee la que loolu du wàññi doole coalition bi aussi. non loolu nag mënuñ cee wax hmm. lu bari ndax. li ma li ma yàgg rek di wax. Hmm. Euh, am fit mënta weesu ni ça n'a rien à voir ak poids bi coalition bi am waaw hmm. amul mën mu nit mënta am fit ba nettali sa géntu morom. yéen dama yaakaar ni gis nga prédiction bu doon yéen da ngeen doon jàng fi mu ne yéen échoué ngeen kii Bon, politiciens yi échoué nañ examen bi hmm. ndax prédire nañ fi troisième candidature campagne ko rayé fi ay nit pendant trois ans ñu ñëw brusquement Macky Sall président Macky Sall bousculé sen esprit ñom ñoom ñëpp ñu tiang hmm. fi mu ne ñëpp a càng ba mu nee man déposé tuma troisième candidature hmm. té il était dans son plein droit parce que c'est le conseil constitutionnel qui valide et qui invalide les les les les les les candidatures des présidents moom mu jël ngorom ne man du ma déposer troisième candidature waaw waay gàcce ma nañ ma jaaraamal sàll sàll sàll ngaari lam tooro voilà te bañ koo ñaawal voilà seen Génération FM Generation FM radio